werante man du ma werante ne yooyu jamono Ablaye Wade moo nekkoon pouvoir man ma nekk ministre ci gouvernement Ablaye Wade mhm. loolu du ko weddi mu am mhm. ay nit ñoo xam ñenn ñi suñu parti PDS yooyu jamono ci la ñu bokkoon mhm. ñoom ñoo xeex ak moom mais du xeex bi la ñuy wax li ci mujj la ñuy wax donc loolu il faut que aussi ñu génne ci politique. na war a war a nangu ne boo bëggee boo bëggee seetal politique maître yaa ngi koy wax ndax yow euh, am nga fi jotee ak le pouvoir. yoon tegu tegu sa kaw. Euh, article quatre-vingt su ma juumal nga nga joyanti ma. Euh, nga ŋaññi. sunu justice jàpp ne sax dañu koy jëfandikoo est-ce que du tey jamono jooju nga tolloon. ba jàpp ne dañu instrumentaliser justice jamono jooju peut-être la Barthélémy Dias toll ci euh, ko pour convocation pour le 10 novembre. dama naan toujours wax ko ku ma xam ku may déglu samay wax masu leen li may wax toujours Ousmane Camara mooy sama seede parce que saa ma waxee ci justice ma tudd ko. Mhm. saa yi ma waxee justice magistrat bu bëgg jug di nga mhm. magistrat bu bëgg jub di jub ku bëggul jub nag du jub dama wax toujours naan dama koy wax wax naa ko ci olof wax naa ko ci français j'ai toujours di qu'il y a des magistrats couchés am na mais les magistrats qui veulent être debout resteront debout daa am loo xam ne dama ko jomb Cheikh Tidiane Koulibaly mu yore tey cour suprême maa moom ñu doon jàng université donte moom ma jiitu woon euh, kële Ali Sireba mu yore cour d'appel ñu doon jàng université man rus parce que dama leen xam. man gënuma leen jub. dàquma leen jàng gënuma leen gëm yàlla. man rus naa dajeeg Cheikh Koulibaly di sëgg. parce que dama xam ku jub la. moom du ma rus naa dajeeg Ali Ba di sëgg parce que ku jub la. donc man mënuma wax man que justice bi dafa dafa dafa dëng. dinaa wax ne ci biir justice am na ay nit ñoo xam jubuñu. lu ñu leen defloo ñu defloo ko. loolu am na loolu laa yàgg wax mais man masuma taxaw. rus naa man ma nekk avocat ak bi ma koy nekk ba léegi. samay moroom yu doon liggéey ci fonction publique wala privée ñëpp à traité danu man rus naa nekk ministre la justice nekk avocat taxaw ëllëg di xool magistrat yi ne leen yéen jubul. am na ci ñu jub am na ci ñu jubul avocat yi am na ñu jub am na ñu jubul loolu laa ma sa wax. sama kàddu ba sul doon leneen lu dul loolu. nee nga sénégalais yi dañuy jéppi politiciens yi te muy dëgg mais est-ce que lu tamit du yéen pratique ngeen di def mooy xas ki nekk ci nguur gi ba mu neex leen ngeen dem wëlbatiku ànd ak moom non non non loolu loolu nag fii lañ ko fekk dama lay wax rek euh, Lamine Gueye ak Senghor dañu ñëpp xam xeex nañu parce que yow amoon ay temps ba tey ba tey dama lay wax xoolal dama lay wax dara jékki gis la nga dem ndaw Kounda li may wax ragaluma ko ndaw Kounda li may wax ragaluma ko gis nga man bay xuloot Macky Sall mayuma ko dara yaakaar nga ne man Macky Sall may na ma dara mayuma dara mayuma ko dara. Mm-hmm. xeex su jotee da ngay xeex ba mu saf sap. Mm-hmm. waaye gannaaw ay jàmm. ma ne la Lamine Gueye. mais est-ce que jàmm jàmm ji tey nekkul woon nga nekk sa côté di ko doxal moom mu nekk ci côté di ko doxal. waaw loolu loolu loolu opposition mais moo gën tey ji ñu bëri ci loolu ci loolu la ñu di ŋàññee ku nekk ni nga ko gisee la. dama lay wax naan Ngalandu ak Senghor duñu xuloo ak Lamine dañu xuloo ñu mujj juboo Senghor ak Lamine ñu xuloo ñu mujj juboo Senghor ak Mamadou Dia doon ànd mujj gi noonu kële euh, ki ñu xuloo àdduna politique mooy demee noonu tey parce que aussi euh, langue ab la ak langue la du ñu ay ennemis. kon yéen du ñu ay ennemis arrangé ngeen nax askan wi ni leen politique la woon moo ñu boole woon soo ko jëlee noonu. Mm. dafa mel ni tey ki ki ki nekk journaliste di liggéey fii. Mm. liggéey fii ba mu toog ba jig jamono ñëw. mu dem faneen. ah du benn d'accord déet benn la dégg dama lay wax rek dama lay wax rek. xam nga affaire bi mën nañ ci débattre fii ba suba. waaw ba tey mën nañ ci débattre fii ba suba maître waaye dama lay wax rek xam nga politique politique. fii ci àdduna bi la demul àllaaxira. Mhm. li ñuy politikoo lan la dañuy taxaw may wax man maa dama bëgg réew mi ni ma bëggee réew mi moo gën yow ni nga ko bëggee maa la ko dàq liggéey nga ne yaa ma dàq liggéey. ñu ciy werante ñu fal la. mais maître soo nee boo nee politique ci àddina la yem. te nee nañ yombal xiyaam kenn ku nekk dina la laaj ala na nga yore woon réew mi nan lañ la dénk dañ ko sàmmee woon. nga defee nga defee yombal xiyaam du fi nga koy liggéeyee. waaw mais boo nee politique ci àddina la yem déedéet xam nga dafa am topp yàlla topp yàlla donte ne mën nga wax ne politique bokk na ci topp yàlla waaye politique bokkul ci diine ndax politique mooy tax ki gëm yàlla. ki gëmul yàlla ñëpp ñu ànd di liggéey c'est-à-dire maître bu ñu la déggee c'est-à-dire que boo waxee ne mën ngeen bañ a àndoon àndaat nga comparer sax tey les politiques li ñuy def muy transhumance ak journalistes yi euh, dafay mel ne danga nga valeur ci doxalinu way politique yi non dinduma parce que valeur mooy kàddu goo waxoon nga sàmmoo ak moom ki nga ŋaññoon démb bu fekkee ne gisoo mu soppiku nga wéy di ko ngañ ni est-ce que yow yaakaar nga ne parce que ce qui a changé bëgguma dugg dans les parce que soo ma laajee man dama bokkoon PDS euh, ma jóge PDS ñu defar suñu parti. Mm-hmm. dama defaree suñu parti ñu ngi ko defar jamono bi nga xam ne ne bi dafa am dialogue politique ak dialogue national. Mm-hmm. ñu dugg ci dialogue politique. Mm-hmm. Sénégal yëpp du dégg. Sénégal yëpp gis ko ma jàpp ne ay nit suñu nangoo suñu nangoo toog ci benn taabal di waxtaan suñu waxtaanee ba pare suñu jàppee ne am na loo xam ci waxtaan bi juboo nañ ci ñu ne est-ce que mën ngeen li ngeen juboo ngeen doxal ko. loolu nga doxal ko gisuma loo xam da ngaan da nga transhumer wala amuloo valeur. léegi léegi lan moo changé lan moo lan moo changé entre temps. li changé qu'est-ce qui a changé li changé mooy ci li ñu déggoo. li ñu déggoo werante nañ fi ci code électoral mu metti ci ay élections yu metti ñu ñëw sur téeméeri poñ bi ñu waroon discuter ñett wala ñeent lañ ci d'accord li ci des yépp ñu ànd ci. Mm-hmm. loolu dafa changé. Mhm. Mhm. d'accord ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey su ñu bëggoon ñu discuter ci loolu je suis prêt. parce que processus électoral bi ngay wax ba tey nit ñi ñu ngi koy ŋaññi ŋaññi bi moo indi tey rejet ci li nga xam ne nemmeeku nañu ko. ci liste électorale yi waaw euh, lu jëm ci référendum yi ay jamono peut-être ŋaññi woon nga ko mais dama bëggoon peut-être euh, balaa ñuy jeexal ci ci Barthélémy Dias parce que ñu ngi ci woon dégg nañu ko mu ne moom suba dina wuy ji et que bu wuy jee dina exiger pour que ñu amal procès bi suba suba suba loolu ndax lu mën a lekk nekk la wala wala lu mënta nekk la. xam nga yooyu yëpp loolu laay wax naan lu tax politiciens duñ leen duñ leen fonk loolu daf ci bokk. Mhm. parce que kay dem pour ñu atte la da nga naan bëgg naa ñu atte ma waaye par force dañ may atte te depuis ñetti at ñu lay woo ñetti at wuyu demoo say avocat ñoo fay dem nga yeewu suba dañ may atte par force xam nga loolu pour nit ñi la koy waxal. amul tax man xaw ma ndagam parce que xaw ma dossier ba mën nañ ko att wala mënuñu at xaw ma ci dara waaye. Mhm. pour ñu atte nit il faut que ñu ngi ko seqal ñëpp teew. il faut que ñu ngi ko seqal ñëpp seen convocation ñëw lu ñu wax dossier en état su dossier bi nekkul en état adduna mënul muusatul mu cëg ba ñu atte ko parce que mënuñu ko atte mm-hmm. yow suñ la convoqué tribunal man ak yow ñu man ak yow ñu am lu ñu seq ci xuloo wala ci leneen. Mm. ñu convoqué ñu man ak yow yow nga jot sa convocation ba sama convocation. Mm. soo demee noo taxaw ne man dañ ma àtte par force. parce que man ak yow la mais que amul sañ-sañ ngi dem mi ngi dem ci ay élection nekk candidat est-ce que amul sañ-sañu. bokkul nee nañu nañu ko juger peut-être pour que ñu xam fan la ñu féete. amul épée de Damoclès parce que bañ kay convoqué tribunal ba muy def appel. élection amul moom moo def appel. ñi yëpp xewal. Mm-hmm. moom moo def appel kenn kenn kenn seexalu ko suukar. Mm-hmm. kenn waxu ko dara moo toog ba mu neex ko mu ne liñ ma atte neexuma dama bëgg ñu attewaat ma. Mm-hmm. ñu woo ko ñetti at a ngi ni ñu koy woo. benn yoon tànkam teewul tribunal mu yeewu suba teel ne suba laay dem waaye suba da ngeen may atte par force te mu am ñu mu ko seqal ñooñu mu ko seqal su dee ñoom toll wuñu fu ñu leen di atte kenn du ko atte. ñu ci tolloo te ñu war ko dina dinañu ko atte par force par force dinañu ko atte mhm. waaye moom mënul taxaw ne tey lañ may atte par force kenn masu ko gis fenn mhm. masul am ci àdduna ku ko wax lenn moo la ci jublu mooy dama bëgg comme li xale yi di wax wut buzz ci loolu waaw euh, d'habitude lan mooy mhm. guddal procédure yi parce que gis nañu ni ku am jafe-jafe ak yoon euh, soxal lu jëm ci wàllu faat bakkan da ngay yàgg lool ci kaso yi ba sax fan yi ñi ngi wax mbirum euh, bracelet électronique euh, bien vrai que loolu dafa concerné beneen ñeneen ñeneen ni doomu Sénégal peut-être mais lan mooy yéexal procédure yi bi nga xamante ne ni ku ñu jiiñ tey rey nit ñu toog peut-être que deux mois wala un an ñu àtte la nga xam sa sor waaw loolu problème bu am solo la parce que man maa ngi fàttaliku mm-hmm. bi ma nekkee association des jeunes avocats du Sénégal boori 1983 84 euh, loolu. Euh,